ah waaw ñu ngi leen di ziar ah, di sant yàlla xanaa fekkee cent quarante quatrième édition appel Seydina Limamou di sant suñu borom bu baax di ziar xalif général bi di ziar njaboot gi yëpp di ziar mboolem kuy jullit ak koo xamante ni gëm nga suñu borom eh, di sant yàlla di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa aujourd'hui ñu gis euh, appel bi xam naa di nga ñëwaat ci sa sa teewaay di nga ci dikk mais aujourd'hui ñu gis aussi euh, cette année mu euh, nekk 144e édition appel bi mu tase ak benn contexte bu xaw doy waar mën nañ nañu sax nit ñi ñi ngi doon tiit à ce que peut-être nit ñi duñu génn ndax tension ak jàmmaal yi xam ñu ngi koy noté jamono ji ci réew mi ñëpp déploré ko aujourd'hui ban jàngat ngay def ci loolu bien sûr cette situation bi nga xam ne amoon na jamono ji ak bi nga xam moom lañ tànn ren ci ci ci appel bu njëkk d'abord mooy que ni xam nga ñun Sénégal euh, réewu diine lañ ku nekk am nga li nga gëm euh, te puisque dañu nekk ci appel Seydina mu Laay jullit ñi seen ngëm-ngëm tax na sa boo indi du tax ñu jaamu seen boroom topp ndigal. Euh, itam jiital ci loo xamante ni mooy la foi muy imaan bi jiital ci yar ak teggin jiital ci jàmm ndax Seydina Limaamu Laay moom jàmm la woote ñëpp bokk amul xaj amul seen donc malgré contexte bi nga wax léegi mooy contexte politique bi ngay wax sertenement terewul waruñoo fàtte suñu biir société dafa am ay pàcc-pàcc dafa am pàcc boo xamante ni pàcc bu ñu jagleel diine bi bu ñu jagleel kilifa diine yi bu ñu jagleel ñun ñi taalibee yi donc lu toll ñi appel Seydina Limaamu Laay contexte bi ak nu mu mënti demee du tere nit ñi wuy ci appel bi loolu moo tax ñu gis ko fii ci yoof gis ko jàmmalaay gis ko Cambérène gis gis ko fépp foo xamante ni ay bërëb yoo xamante ni war nañu wuy si moom woote bi mu woote woon te loolu dañ koy rafetlu ndax suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi itam dafa am partition bu ñuy joué bu sa amee dañuy woote jàmm dañuy woote dal ku nekk nag ak sa responsabilité ci sa biir société presse bi responsabilité am homme yi seen responsabilité Euh, maanaam attekat yi seen responsabilité donc responsabilité yi bari na ku nekk daal defe naa waruloo wàcc sa ànd ndax boo wàccee sa ànd rek ànd boo euh, wàcc rek fekk fa euh, borom donc loolu lu ñu war a lu ñu war a bàyyi xel la incha allah. tey monsieur Kane ñu gis peut-être mën nañu wax ne coow li li ko waral yëpp lenn la muy jël élection yi dàq ko ba le 15 décembre aujourd'hui report boobu tey moo waral ba fitna gi juddu tey ji report boobu est-ce que ànd nga ci mais aussi le président Macky Sall woote dialogue muy waxtaan ñuy xaar peut-être yéen ñi nga xam ku gi ñëpp booloo dem ci euh, bien sûr fekk ko ci dialogue boobu est-ce que pare nga yow pour dem fekk ko ci dialogue waaw man dama dama foog ni du contexte bi fu ñu nekk mooy euh, man sama position moom wax naa ko ñëpp euh, dégg nañ ko ci lu jëm li nga xamante ni ràndal bi ñu ràndal élection bi wax naa sama position loolu du sama gis-gis jàpp naa ni élection bi war nañ ko mën a amal ci ni ko charte réew mi waxee waaye tey gi wax dëgg yàlla taalibe moo fi ñëw jullit bi moo fi ñëw daal jaamu suñu boroom di wuy si itam woote bi nga xamante ni maam Seydina Limaamu Laay woote na ko mais bu ñu amee beneen occasion. bu soobee yàlla bëggoon naa xam bàyyi ko bàyyi ko noonu. nga xam nga waxtaan moom dafa yàgg ci Sénégal seen ñu ngi waxtaan ci biir kër yi ñu ngi waxtaan ci euh, wàllu diine bi ñu ngi waxtaan ci wàllu lu nekk defe naa loolu moom euh, woote jàmm moom ak woote waxtaan loolu dara aayu ci waaye waaye loolu dafa am lu ko lal. li ko lal d'abord mooy quand même euh, charte ndeyu réew mi moom ci ñun ñëpp ci lañu ñu war a tënk te man loolu mooy sama xalaat. mais mën nañ la xaar à ce que nga participer ci dialogue boobu. déedéet xam nga loolu loolu beneen waxtaan la xam nga mouvement Demain c'est maintenant dafa ñëw sax ànd ak délégation bu am solo euh, ñëw teewee tey maanaam cérémonie officielle bi euh, bu jotee itam ñu war a àddu ci lu jëm ci appel l'appel au dialogue loolu itam dinañ ci àddu tey daal bàyyil taalibe daal moo fi toog daal taalibe bi moo fi toog di ziar bu baax xalif bi di ziar sëriñ si yëpp di ñaanal Sénégal jàmm ak salaam.